mais sant yàlla sant yàlla bu baax liñ ci mën a jàpp euh, contentement am nañ satisfaction bu bu wér par rapport ak euh, juge yi ni ñu àttee ci seen aqulay taala euh, may profiter avant tout au nom de la présidente Aminata Touré di remercier les avocats yi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon jàppale ci procès bi am ci taxawaay boo xamante ni leeral dans le fond ba nga xamante ni ñi ñii ñëpp ànd ak Aminata Touré bi ñuy ñëw fii bi ñu jugee fekk keroog ci tribunal bi xam nañ par rapport ak seen plaidoirie yi xam nañ ba xam loo xamante ni bi ñuy ñëw fii ñun xamuñu ko woon. donc tey verdict bi su amee c'est parce que ñoom ñoo am taxawaay bi ñu waroon am. beneen bi ci des aussi ñuy remercier tous les militants de Mimi 2024 yi nga xamante ni dañu accompagner suñu présidente xëyaat aussi ñëw fii taxaw pour xam verdict verdict bi nag ni mu amee mooy li ci am mooy ni. Euh, tribunal bi manam nima ni ma la ko mën a firndeele mooy ne Touré la jox deug mom la jox deug parce que néna déclaration yiñ ñu doon wax nan diffamation la juge bi néna ko madame Aminata Touré était de bonne foi. benen bi ci dess mon Mansour fay a été condamné au dépens. donc tay mën nañu japp ni frais bu am ci procès bi rek ci ndodam la tegu. mais dafa am lo xamanteni dafa jara préciser moy ni euh, madame Aminata Touré bi mi wax.

yoo xamante ni tey ay rapport la yoo xamante ni ah, madame Aminata Touré bi muy wax président Macky Sall la jiital ni c'était un carnage financier orchestré par le président Macky Sall ba pare ni Mansour Faye a joué sa partition dedans parce que Covid bi mille milliards yi ci loxoy président Macky Sall lañ ko doxal donc bu lever toutes les contraintes yi nga xamante ni moom moo war a moom mooy sous-tendre état de droit ba tax ministre yi mën a def lu leen neex kon le premier responsable moom la loolu la Aminata Touré wax mu dugg aussi ci rapport Cour des comptes bi gis surfacturation de 2 milliards 700 et quelques gis 600 et quelques millions yoo xamante aussi dañ ko dépensé Cour des comptes décrier ko mu teg fa baaraamam wax ba pare demande autorité yi kon moom li ñaan té tay la koy gëna ñaan tay bimu amé verdict bimu amé verdict favorable ba paré moy la reddition des comptes parce que Sénégal dafa tollu ci jamono bo xamanteni ñun xalé yi soxla nañ lu leen jappalé ak bëgg nañ ay infrastructures et tout il n'est pas normal que des gens yoo xamante ne dañ leen dénk alalu réew mi ñu def ci lu leen neex ba pare bëgg taxaw di am lenn loo xamante ni dañ koy wax boo seetloo li am nag mooy ni ñii yeewooguñu maanaam 2024 dóor bi leen jomaay dóor dañu yeewoogul mais le réveil sera brutal pourquoi parce que tey dañu fàtte ni justice na daan doxe ak léegi ni muy doxe bokkul beneen bi ci des yaakaar rewoon nañ ñi Mansour Faye fu mu dem dañ koy jox ndam dafa fàtte ni on est à une autre période Sénégal li mu laaj te gouvernement bi taxaw ci mooy reddition des comptes mbir yi jaar yoon loolu moo waraloon waxu Aminata Touré te tey la ci gën a sax ñuy ñaan la gouvernement ñu song ko parce que les sénégalais aussi foofu lañ leen di xaar. ndàmpaay bi mu doon euh, bi xam nga Mansour dafa laajoon un milliard bi mu laajee un milliard madame Aminata Touré laaj un milliard waaye ba muy laaj un milliard madame Aminata Touré loolu soxalu ko waaye li lay wax condamnation Mansour mais nee ko. yow dañ la condamné à dépens ça dit que ni tous les frais du procès yow la benen bi ci dess ñu jox deug Aminata Touré madame la présidente Aminata Touré ci bonne foi donc tay mom lam mu doon bañ ñu wax juge bi nee na Touré li nga wax c'est de bonne foi parce que dafa am fu ko tek madame Aminata Touré du teup femme d'état la di wax naka sudul non waye comme ni ma la ko waxee la ñoom nañ ni la fi nekkone fi nekk ba légui dóor yi lañ jomay dóor en 2020 président jomay dóor en 2024 ñom yéwoguñ ci mais comme je te l'ai dit avant

parce que verdict mom say avocat mën na ñew comme madame Aminata Touré dafa amone empêchement mom mais aussi xamna ni ci deug la nekk bam mu ñew ñëw wax li mu wax fim ko tek et puis mom mo waxal bopam fim ko tek amone na des avocats mais mom ci bopam il a donné tous les détails yi nga xamanteni ni ñoo sous-tendre ses sa parole liko indi fi dafa joxe les détails tay nak juge bi jox ko deug ñuy wax nit ñi ni leen nañu am confiance ci suñu justice li fi nekkoon nekkatu fi Mansour Faye ak nañ ñi fi mais loolu et di remercier aussi la coalition Diomaye Président pour le soutien parce que depuis le début les gens autres beaucoup de représentants de la coalition ñëw nañ solidarité mais kenn 2024 Nous nga xamante fu nekk la ñu Fatick madame la présidente mais xamoon nañ ñi ndab rek lañ ciy après la lutte contre le troisième mandat, contre Macky Sall, après la lutte contre le report, contre Macky Sall, une victoire contre Macky Sall contre la famille Faye ah Sall tey Mme madame Touré am Nous nag xam ne ñoom duñ madame parce qu'elle est de bonne foi comme nous ko dit. bonjour. Hein? bonjour je suis venu je suis venu apporter notre soutien la coalition est président.

madame la présidente Mimi Touré moom dañ ko jox ak ak yàlla fam dafa top affaire bi jusqu'au bout la mu doon wax moom xam na ko ñun it xam nañ ko dañ ñëw apporter soutien pour wan ko ne ko bravo wasalaam.